salaamaaleykum mbokk internet yi nga xamante ne yéen a ñuy topp suñu plateforme yi le di Warna Média TV ak Rewmi Média point comme di site askan bi le mbokk yi ni ñu ko waxee woon seen soxla ak seen bëgg-bëgg euh, fépp mu nekk danañ leen ko indil ba tax na tey euh, mbokk yi euh, ñoo ngi ñaari site yu am solo yi le ñoo ngi ànd ngir rek di teeru ñi nga xamee ne ñoo demoon xelkom mbokk yi lu ci mën di xew rek da ngeen ñuy topp bu ko defee ñu daal leen di jëlal fulu bi sëñ naa sama cameraman topp ma la ilaha illallah fa la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah fa la ilaha illallah sama naanaan maa ngi lay nuyu. tubarkalla macha allah loo maa ngi lay fay borom rew mi media ñuy am bekté di kontaan ci yeen seen liggéey bu rafet tabarakallah bi ñu jugee xel koom dikk yem ci yeen te ñu ak yeen xel koom nag dina ñu bis tamit ñu ànd ak yeen tabarakallah liggéey bi rafet macha allah rafet lu taxaway taxawaay bépp xamni Serigne saliw rek mo ñu ko jaral tubarkalla macha allah ñun ndaw ñi mom dañu fété ak Serigne saliw waaw kontaan nan bu baax. liggéey ba fu mu la toll jeex na tak de. liggéey ba macha allah jeex na xam nga mouride mom ben cadre rek lañu diglu waaw muy ndigal ki nga xamante ne moo fi nekkal Serigne Touba tubaarkàlla macha allah ñu ñaanal sëñ Muntaxa sa borom yàggal ko fi. waa kay sëñ Fallou bég naa lool sama xol sedd naa kon sedd naa ni ma la ko waxee ba léegi rek da ngeen may topp bu ko defee rek. incha allahu rabbi lépp loo xamante ne euh, euh, taalibe yi jógee nañ ko xelkom euh, rek fas yéene delluwaat seen i kër site bii di Rewmi Média Wurna Média dañ leen ko toppal baax a baax sama cameraman topp sëriñ bi ñoo ngi lay nuyu. ñu ngi lay ñu ngi ñu ngi lay fay. tur beeg sant. sëriñ Salihou Ndo. Euh, tool yi naka la demee woon. Euh, bu baax a baax rek. ak bég bu baax a baax. ci li alxuraan naan. wa aw awfu bil ahdi inna ahda kaana mas'uula. jëfe sëriñ Salihou ci ñun. yërmaa dem ci ñun. ak bëggam ci ñun. ak bëgg ak ak bëggum bëgg lu baax ci ñun. moo waral mbooloo mi. nangoo dem sonnali ko. ñaqal ko ngir jariñu ëllëg. waaw loo ko jëfal rek mu fay la ko sëñ nee na boo ko boo ko guddi boo ko ker mu fay la guddi boo ko guddi mu fay la loo loo amul kon boog yàlla dogal na dem nañ ci jàmm ñëw nañ ci jàmm sant yàlla ak yonent bi ak sëñ Tuubaa man ak sama rakk yi ñoo ànd waa am nañ benn taalibe cheikh boo xamante ni macha allah suñu groupe bi moo ñu ko yoral lépp loo xamante ni san borom dogal na lu jëm ci wàllu courant bi dara manqué wul allah taalibe Cheikh la barke Serigne Touba. Aliou Diop. taalibe Cheikh nga. taalibe Cheikh Pire la lan la jàpp ba tax nga ñëw ko. waaw ah bëgg gaa bëgg gaa rek ñëpp benn lan fii amul murit amul tijaan ñëpp benn lan fa yàlla kon dañoo bëggante ñun ñëpp li ñu ñaan yàlla mooy ñu fexe boole xol yëpp ñu juboo nekk benn ma loolu laa ñaan si yàlla ngeen tudd bis mi tey nag sëñ Touba moom sëñ moo kon nan la jërëjëf sëñ Touba jërëjëf sëñ Salim. maanaam daal ci gis gi ñëpp daal ay la ndax murid du la ku na ma jëm ci yàlla. ñëpp benn lan ñëpp benn lan yal na yàlla def jàmm rek. sëñ bi rek dara ñor liggéeyal sëñ bi kese kese kase moo ñu ñor te wax dëgg yàlla fii moom ku fi ñëw ko ne ab tawfeex rek nga fiy jëlee barke Sëriñ Fall tawfeex kese kese kese kese nga fiy jëlee rawatina man mi nga xamante ni nag moom maa ngi doog a ñëw xelkam te yàgg naa kaa bëgg a ñëw mais xëy na nag ren la ko suñu borom tudd ren la ma sëñ bi woo pour ma ñëw fi mais wax dëgg yàlla moom ci kàttanu yàlla xel ko moom ñaanu yàlla di ko rate même bu ñu fekkee ñu nekk bitim réew sax dinañ ñëw incha allah dem xelkom bi bu soobee suñu borom sant nañ ci bu baax a baax a baax a baax yéen it di leen sant bu baax di leen ñaanal suñu borom yokk leen bi ngeen yokkoo ndax lii ngeen def nii tamit wax dëgg yàlla moom mbégte la waaw introsé ni ngay dos nii ñii si lu ñu xam si xel ko mbég loolu wax dëgg yàlla moom sant nañ si bu baax a baax gerte ga macha allah ngooñ ma bari na gerte ga bari na liggéeyee nañ ko liggéeyeen wu sell wu tuwaari kàll ñun nag ay dongay sëñ Saliou yoo xam ne nii 92 la ñu joxoon sëñ Saliou ñu nekk ba sëñ Saliou làqu ci 2007 ah, jot ngeen jot ngeen kaa gis waaw waaw ñun ñoo jamonoon teg moom Nakang ak mom ba yalla def moom ma làqu suñu beut waaw ñu señ Cheikh yawé ñu ñu ñëw and ak gaay ne ci liggéey jamono bi légui señ Cheikh sax ñu ko ñun dongé señ salu ak soppe yi waaw ñu bàyyi yitte yépp waaw daal di tak suñu war rek dem ci tolé ya tubaarkalla liggéey bi wax deug yalla jaar na yoon de moom teg nañ ko ci yoon de wax deug yalla waaw wax deug yalla liggéey nañ ko liggéey bu sel waye nak señ salu jaar na ko waaw sha allah toolu xel ko ma sha allah neex na sante señ salu rek ndax mom mo waral li ku jóg rek sëriñ saali wala tax a jóg neex na di ñaan yàlla gudd fan ak wér ak fekke ko ati ko teewe ay déwéni déwéni déwéni déwéni barke sëriñ saali Mbàkke sëriñ saali li ma defal bari na ndax su ma la ko dee wax moom wax dëgg yàlla xanaa dama ciy def yenn rek waaye macha allah bari na bari na loolu wax dëgg yàlla sëriñ saali lim ñu defal bari na lu ñu mel rek sëriñ saaliw la nu ñu am nu mel sëriñ saaliw la jërëjëf sëriñ saaliw ah, ah, fa la ilaha